ndaw la noonu la ko yonante bi sallallahu alayhi wa jàngalee li tax mu ne nelaw gu ndaw la ndax bari waay na doomu aadama bu tëddee di nelaw géntewul bu yeewoo du xam lu xew si gannaawam lu dul ne dañ ko ko nettali noonu lay demee itam doomu adama bu génnee àdduna du xam lu xew si gannaawam tànk ñi ko war a taaj taajuñ ko ne ko lii xew na lii xew na lii xew na lii xew na kon nelaw demi dee la nelaw demi dee la eh waay guddi gu jot Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi moom moo ñu ko jàngal ndax lu tax nelaw nekk demide El Hadj Baye cher uh-huh. tey doomu aadama li muy bëri ay yëngu-yëngu li muy bëri rëcc-rëcc yi li muy bëri ay ay activité hmm. am na foo xamante ni bu fa léeg-léeg nga ñëw fekk nit kuy nelaw. Ah. nga ne kii de dee na. dëgg la de. mais da koy jële au sens figuré. kon dee mooy double D. ah. dee mooy double D. dee. dee mooy double D. waaw kay. mu ngi noonu nelaw mooy demi dee. waaw nelaw mooy demi dee. xale bi defar machine na yokk yokk son bi ñuy déggante. nga ne nga ne kii de dee na wala kii de kii fu mu deewee wala kii mel ni ku dee c'est parce que nekkatu fi. te yo yoon sallallahu alayhi wasallam jàngale na ko. Mm. nee na képp ku nelaw yàlla day jël ruux ruux yi ku nelaw rek yàlla téye na sa ruux. ngay noyyi am na ñoo xamante ne nii si biir nelaw yi oustaz Pape junj na ko léegi fa la ñuy jaaree dootu ñeewu ba ilaa yawmi diin ndax yàlla heure boo yeewu jotee nag yàlla joxaat malaaka mi ne diwu sàngam de heure yeewam jot na demal delloo ko ruuxam allahu yatawassa waaw kay allahu yatawaffa al anfusa xiina mawt mawtiha wallati lam tamut fi manaamiha fa yumsiku allati qada alayhi alayha al mawt wa yumsiku al uxra ila ajalin musamma yàlla nee na yàlla man maay ki nga xamante ni allahu yatawaffal anfusa xiina mawtiha yàlla nee na doomu adama buy nelaw man maay rocci ruuxam tey ko yaa ngi dégg waaye am na koo xamante ne nii fa lay jaare dootul jóg ba ilaa yawmi diin ndax heure deewam day fekk muy nelaw moo tax léeg la ngay dégg ñu naan yàlla na sedd ndax ki tëdd di nelaw ñu këpp këpp jógaatul kook nga xam ne sedd na la yow déjà ñun dañoo amee insomnie àllub neen <laughs> tey gis dinaa dina am ñoo xam ne duñu nelaw. waaw ndax ragal dee déedéet jarul tiit nañ xam nga lu tax. Hmm. parce que ku nelaw démb yeewu. Uh-huh. nelawaat démb tey yeewu. war nga sant amal yaakaar ne man ngaa da da ngay nelawaat yeewaat. wallaahi incha allah yàlla teg si na wallati lam tamut fii manaamiha hmm, hmm. ak bi nga xamante ki nga xamante ni tamit euh, si biir ay nelawam. faatu si yàlla na ruuxam man maa ko téye woon. wa yumsikul uxra yaa ngi dégg. am na ñoo xam ne nag yàlla na ne seen ruux moom dootuma leen ko delloo. Mhm. foofu la ñuy jaare yomal xiyaam foofu la ñuy dekkee. loolu loo siy déggee. la ko waykatu arab ba waxoon. Mhm. man lam yamut bi sayfi maata bi xayriha taaddadatil asbaabu. Mhm. wal mawtu waaxidu. ñii si géej la ñuy faatoo. ñii crash d' avion la ñuy faatoo. te kenn du xam ñii accident si tali bi la ñuy faatoo. ñii dañuy tëdd nelaw faatu ñii si guerre la ñuy faatoo mm-hmm. ñii si feebar tëdd hôpital la ñuy faatoo mm-hmm. ku nekk façon wi dee yi moo wuute mm-hmm. waaye diwu dee na rek ngay dégg après diwu dee na diwu dee na diwu dee na mooy comme li ñuy wax rek kaasee wuute waaye ku xëy guux dee wi nii moo wuute waaye dee moom benn rek la alaaji Baye Cheikh moo tax nelaw nekk loo xamante nii déggu ndaw la ndax boo nelawee rek yàlla téye na sa ruux si moom la dépendre nag. waaye yàlla nañ yàgg di nelaw te yeewu. bu kenn bu mu teree kenn nga nelaw. ndax nelaw ak dee jotewuñ dara feebar ak dee. jotewuñ dara di doxi say soxla dara dalu la ak dee itam dara. nit dox na ba tàyyi ne këlëb foofu la waroon a yem. walan yu axir allahu nafsan ida jaa ajaluha wallahu xabirun bi ma. waaye gis naa fenn feebar jotewul dara ak dee ku dee ñu ne xanaa daf waaw xam nga ah. xam nga tey lu waral loolu. Ah. xam nga doomu aadama.